ci mbooloo mu takku fii ci diwaanu ko Touba Mbacké fi la ñu indi jàngkatu xasida bu mag bii di wuyoo ci turu Serigne Ablaye Niang Ndar Serigne Ablaye Niang Ndar doonatul koo xamante ne dañ koy présenté ti fii ci réewum Sénégal waaye ci Touba Mbacké ak ca Ndar géej li ko waral rek mooy tool wu yaa wi nga xamante ne bay na ko ci yoonu murit Serigne Ablaye Niang Ndar doon koo xamante ne bu yëkkee kàddoom la mu cay wax rek moom moo di ñàngalek Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké rawatina lii di xasida yi nga xamante ni yàlla da ko cee mayoon mu am ci ab xam-xam gu yaa waaye tamit maîtriser ko woon loolu ca atum 1990 Serigne Abdoulaye Niang Ndar ab feebar bu metti daal di koy tëral ginnaaw feebar boobee nga xamante ni li ko daaneel bokk na ci ay corde vocal maanaam ay buumi baatam Thiam ginnaaw ba muy way di tagg Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké le fondateur du mouridisme ca la ñàkkee li nga xamante ni moom moo di voix wam daal di tëdd atum 1990 ba saa sile tembe ci atum 2020 mu daal di dem wuy ji suñu borom jamono jile ñoo ngi fii ci Touba Mbacké ñu koy waajal ngir fas yéene ka jébbal suñu borom waral ba communauté mouride soppe ak xarit fépp waaye daal fay bàyyeekoo ñëw fas yéene ànd ak moom moom gunge ko ba ci këram gu mujj ca waxtu boobe nag taalibe muriti seenub xar kanam li ñu ci gën a mën a ràññee rek bokk na ci naqar ak waaye tamit ana kan moo leen di bégalati bismillahi fii niin ak daala yàllaw safi baqa abi bi fiika yàllaw أبويا من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي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 الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أقيم بإيستي إذا يقال لدولد تكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم بسم الله يكفيني أقدر يا الله صلي بقاء بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي